ngir ngeen di jot suñu vidéo nak fo leen tollu ci biir rew mi wala bitim rew da ngeen di abonné fi ci Faro TV ngir mëna jot mbooleem vidéo bo xam ne dinañu ko ngir mëna xam mbooleem lo xam dina xew fi ci biir rew mi wala bitim rew ñu mëna jëndé jëndee ñu déglu kaddu yi euh, jokkel ga ci micro Ibrahima Jamme li xadi ñëpp rek mo mëna xadi rek ndax Sénégal tay fu mu tollu Covid bi ñu joggé ñu ngi ci à un mois de l'hivernage jiwu amul intrant amul Covid baa ngi fi def ba léegi liggéey la xal yi bëgg mënuñu am liggéey kon bu ñu toogee ba Sénégal tey fi mu toll ak coono bii nit ñi nekkee xiif bi fi nekk ceeb yokk dënnu yokk suukar yokk lépp yokk démocratie bi ñu nësaxal ko nga dem di jënd avion juróom benn fukki milliards wax dëgg yàlla ci moment yi ñu nekk jekkul rafetul jaadu